giúp giúp jëm si giúp giúp da ngeen jëf. jëf. na mën naa leen. namoon naa leen namoon naa leen serigne bi neena day tukki. dem France. day dem France. andak Adja saliw neena day andak soxna Adja saliw waye fas bu yene yag fa. waye fas ma yene yag fa. damay dem rek. neena damay dem rek. defi contrôle médical. defi contrôle médical. tawat sima fa yobou won tawat sima fa yobou won ñu ma fajee. ba ñu ma fajee. ba noppi. ba noppi. dañu ma waxoon ni. dañu ko waxoon ni. ñetti weer yu jëkk yi. ñetti weer yu jëkk yi. te ñetteelu weer wa. te ñetteelu weer wa. damay dellu. da ma ñibbisee. bi ma ñibbisee. toogaat juróom benn weer. toogaat juróom benn weer. ci juróom benneel ba. ci juróom ma dellu. ma dellu. ma toogee. bu ma toogee. ba ba amaat at fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar ma delluwaat ma delluwaat bu ma ko jàppoo nee na ma ko jàppoo jamono ju jamono ju ma seet ma seet lay duubal ba lay duubal ba ci ay fan ci ay fan ma delu ma delu ngeen ñaanal ma neena ngeen ñaanal ma bala mo amum at bala mo amum lépp jeex. na ngeen xam ni. nee na seen na seenum xel dal. na seen xelu dal. maa ngi leen di digal. nee na maa ngi leen di digal. maa ngi leen di dégtal. maa ngi leen di dégtal. nii. nii. deeti fi yàgg. deeti nañu fi yàgg. jëftul. na sunu njort rafet. na sunu njort rafet. ànd bii. ànd bii. Serigne Saliou def. Serigne Saliou def. muy maag yéen. muy maag yéen. te bu doon téeméer. bu doon téeméer. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. kenn bi te nee na day ànd ak barke. ak wér. day ànd ak barke. day ànd ak barke. ak wér. ak wér. jëf sang bi. nanu sax. nanu sax. ci sant Serigne Sadio.